أقبل ذا الجدار وذا الجدار أمر على ديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب ما سكن بها أرى الله قل وذر الوجود وما حواء إن كنت مرتدا بلوغ كمالي فالغير دون الله إن حققته عدم على التصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محوي وفي ضمحلالي من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عن المحاري فالعارفون فنوا بأن لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة باطلا في الحال والماضي والاستقبال الله لا إله إلا الله الله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله sayidina mawlana muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima taslim laa yawmi diin mbokk jullit yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu leen nu nuyu leen ziar di leen wàcc seen wàccuwaay di nuyu suñu xalif fii si Dakar Cheikh Mouhamadou Amine Ibrahima Niass di teg suñu nuyoo suñu ziara ci suñu xalif Pape Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu di ko jox suñu nuyoo ak suñu ziara mu teg ko ci loxol xalifa bi ginnaaw loolu nag mbokki jullit yi mbokki taalibe yi comme ni ñu ko baaxoo defee euh, at mu jot dina ñu baaxoo def lu mel nii ngir waajal li nga xam ne mooy siyaara suñu sëriñ Cheikh Mouhamadou Amine Ibrahima Niass ñu gën ko xam ci Baba Lamine ci fii nga xam ne mooy Liberté 6 ci terrain Gaal gi euh, ñu ngi koy defee fii ci terrain Gaal gi le dimanche 14 juillet euh, ci at mi ñu nekk naam programme boobu nag mi ngi tàmbali su su 16 heures jotee incha allah muy 4 heures ci ngoon ci la programme bi tàmbali sikarkat yi ñëw sikar suñu demee ba waxtu wasifa muy 6 heures ñu tàmbali wasifa jëm timis suñu paree sëriñ bi ñëw jiite ñu ñu daal di tàmbali programme bi ak ay conférencier euh, ci loolu nag ñu dalal fii suñu kilifa suñu muxaddam kenn ci ñoom ñu koy wax al oustaz euh, Cheikh Momar Dimlo kon moom lañu jox kàddu bi mu tijji ko comme ni ñu ko defee at mu jot alhamdulillah xaq alhamdulillahi ala jamiil wara فالحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ñu ngi santaat yàlla moom rek moo yeyoo sant di julli yonentam teel bi sallallahu alayhi wa sallam di ko nuyu di ñaan yàlla mu jot li ñu suñ nuyoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu del siaar ci li nga xam ne xewal la ci biir xewal ci biti ci zahir ak ci baatin di siyaaree Mouhamadul Amin Ibrahim nga xam ne boo ko siyaaree siyaare nga Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass siyaare nga Khalifa Maulana Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass siyaare nga Cheikhna Ahmed bun Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu siyaare nga yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam وكافة أصفياء الله وأوليائه وكنوسه في الأرض ci loolu nag ci lañ danaa wax ne ki ñuy seeyal tey kenn du leen ko jàngal mooy kan moom la bàyyi noonu yow laay jox lenge yi bu fi bayee ko li may defal yonent yàlla ma sallallahu alayhi wa sallam te woy wa ñëpp mm-hmm. ba baaba ñëwee tontu ko ne ko wa inni وكيل الحب أسقيت كأسه وإني به كالورق دهرا أقرد loolu la tontu li ma bàyyi dénk istaalah naa ko dama koy def sax ba mel ni eh, piccam jàmm moomu xamaamu salaam moom nga xam ne picc mu ne fa eh, banqaas bu ne dana fa taxaw woy sama woy la mooy kàddu yoon bi sallallahu muhammadan hayoo nabiya muhammadan sallallahu alayhi wa sallam nay yón nay yónnante bi ci jëmmi baaba baaba mooy ki xam ne danaa ci junj benn wax koo xam ne moo ko waxoon daf na yónnante bi la doon wax ne ko lam nalqa baaban xayra baabika yurtaja is hammana albaasaau wa daraau lam nalqa baaba xayra baabika ma ne ko lam nalqa baaba xayra baaba baaban yurtaja is hammana albaasaau wa daraau kenn ku nekk ñun ñaar yi bu la ci dara ñëwal ci seer yal na bu kenn dajeeg baasa waaye ku dajeeg moom ñool ci siyaar bi day wér ak doon muy ñàkk ba ca gën nag mooy ñàkk yonent bi dafa wax ne laa hawla wala quwwata illa billah dana saafara juróom-ñaar fukki jàngoro mu ne ba ca gën a néew nag mooy ñàkk siyaare baaba ma ne lamu lay defar ba ca gën jàngoro jam lay njëkk fajal ba ca gën mooy dàqal la ñàkk ba foofu lam nalqa baaban xayra baabika yuru tajaa isamana baasaau wa darraau ma ne teel nag siyaar bi tey yëpp xam solo waaye xam nga problème bi mooy lan dama doon jàng allahu alladi xalaqa samawati wal ard ba ca jeexul mu ne wa aataakum min kulli ma saaltumoohu ma ne ko biha wa aataakum min kulli ma saaltumoohu biha li tax ma ne biha ni'matallahi nga jëkk kanam ni'matallahi juróom-ñetti xarab la boo ko yokkee ci wa aataakum min kulli ma saaltumoohu mooy mille quatre cent quarante suñ siyaara leen bii incha allah ñu ngi ñaan baaba ci ndugg soosu mu defal ñu dog boo xam ne ku ko ku ko kay xool sax sawaajo ngay koy jàng dama ne wa aataakum min kulli ma saaltumuhu biha ay bi niamatillah maa ngi siyaare yëpp maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ci Sénégal yëpp maa ngi nuyu kuy wax asadu laa ilaaha illallaah da xamal ni kër gii muy kër baay moom kër pour ñëpp la ku ñu asal wallaay xaajalewuñ góor xaajalewuñ jigéen xaajalewuñ politicien ñu ngi xoyom ñëpp ñu ngi siyaare ñëpp en tout cas ku bëgg sa aajo faju ak daaw ak daaw jéeg ak li ñëwagul la yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa xam nga ñaan bu fekkee ne ki koy def ku yàlla gërëm la maa taqaddama minha wa maa taaxara loolu mooy nekk di jëmm ji ñuy wax baaba yàlla may nañu koo xam ne incha allah yàlla buñ ko xam xaat ndax lu ma mënul nekk waaye yan nañ ko xam ci suñuy poos yan nañ ko xam ci suñuy xam-xam yan nañ ko xam ci ñuy leer yan nañ ko xam ci suñuy diine yan nañ ko xam ci suñuy yaru yaru doom ñu ngi woo ñëpp ku bugg am doom yoo xam ne day tëdd alxuraan ku bugg a am doom yoo xam ne day am xaalis ku bugg am doom ñoo xam ne loo bugg am ko ñu ngi lay xooral ci siyaar bu góor a jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn fastaxfirullah wastaxfara lakum rasul la wajadullaha tawaban rahima wa sallallahu ala alfatixi alxaatimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari azim gannaaw buñ sant yàlla yàlla mi nga xam ne moo wax ci alquran ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam waxal jullit ñi ne buñ buñ tooñee seen bopp buñ la dikkaloon yow yonent bi salallahu alayhi wa sallam nga jéggalul leen yàlla yàlla dana leen jéggal kon jataay bi lii mbóotam muy ziyaara bi mooy ay taalibe ñu jël si waat ci seen buntu sëriñ jël seeni bàkkaar ak seeni xaajo lépp jëbbal waaye danay wax nag taalibe buy ñëw ci kanam sëriñam bu ñëwee benn rëy ndax mooy ki tooñ boppam ca yaakaar jéggal ci yàlla te kiñ yaakaar jéggal ci yàlla mooy aminul wax yi bàyyi moo ko tuddee woon aminul wax yi gannaaw bu mu leen waxee ne waqad daawtukum fil xaybi wa antum awliya allah bi mujarradi ma samaytukum habibi wa qurata aynin teg nazir ummati aminul wax yi aqib rusul maahil kufri wa dalal mahmun makki hasan kii bunt la ci bunt yàlla yi lu tax bunt la ci bunt yàlla yi ndax dundam lépp jox na ko yàlla ba mu jeex bu fekkoon ne du Mawlaana Cheikh al Islam mi nga xam ne mooy way juróom sax dundam lépp jox na ko yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak jaam yàlla yi ba nga xam ne desewul dara toog di wax ci moom yaakaar naa ne loolu guddal la Baaba Lamin suuf si xam na ko asamaan si xam na ko guddi yi xam na ko bëccëg yi xam na ko dégg naa muy wax ba mu yàgg mu ne wa kama ta'awwadtu an uhyiyal layali li ma fonkee tàmm ko di dundal guddi di dundal guddi yi ci sikar di dundal guddi yi di jël jaami yàlla di leen yóbbu ci seen xadara borom dëgg dëgg ko bu fekkee ne moom la ñuy ooteel tey yaakaar naa àddina bi yëpp ñoo war a ñëw ndax ku yàlla bind rek jëriñ na ci moom muy jullit muy murit muy xaadir muy leneen boo xoolee li nga xam ne liggéeyal na ko réewam ci diplomatie ku fa dem rek jëriñu nga ci moom ñoo xam ne xamuñu ko dégguñu ko egg mu jëflanteeg ñoom ci mbaax kon mbaax googu nag mu jëflanteek jaam yàlla ci biti ba àddina yëpp xam ko te Sénégal ñoo ko mujj a xam kon jot na loolu la ñëw tasaare ko ndakaaru bi ñëwee Dakar gis nga géew yi gën na yaatu xadara bi gën na yaatu kon la 14 juillet kenn ngànt mayu kenn ngànt ndax la 14 ku fa teew incha allah ni ko Cheikh Mouhamad Jimbo waxee nga xam ne waxam rek doy na képp ku fa teew te yàgg fa teew da gis soppeeku ci say mbir ci àdduna ak ci àllaaxira loolu moo tax ñu toog fii pour laaye biir àddina ñun lépp lu ñuy wax gis nañ ko xam nañ ko waaye nag ñi mosut ñoo mos parce que masima ak la yàlla dégg bokkut ak gis na ko waajo wax yëpp nal kiraami allah taddunu ko kub maaxal adda suuta fama ra in ka man samia wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ñu ngi nuyu ñëpp di wax ne ñu ngi wooteel siyaar koo xam ne ñeme nañoo wax li aaya bi wax inna arsalnaaka saahidan wa mubassiran wa nadiran wa daa'iyan ila allahi bi idnihi mooy borom ndigal jëlee ko nag si borom ndigal bi nga xam ne moo wax ne wala abdu qad laqiya ayna al ilmi wa jaahu l idne bi duni wahmin jàmm bi muy Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu mu ne dox na ba daje jëmmi xam-xam ja ndigal dikkal ne ko si lu def def le kooku nag moo jox ndigal ki nga xam ne doomam la di léppam di wakiilu daadin nga xamante ni wax na ko si wax boo xam ne ñun ñëpp dégg nañ ko wax na ko ne ëllëg maa ngi lay jox rendez-vous sa kanam yonent bi kanam Cheikh Tidiane radiallahu anhu nga xam ne soxla bii mooy jum bi yow yaa koy yore sama gannaaw pour lan liggéeyal diine ji liggéeyal tariqa bi liggéeyal fayda bi kooku mooy saydi wa mawlaaya wakiilu daadin di saydi Mouhamadul Amin ibnu Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu kooku nag suñ ko waxee rek yaakaar nañ ñëpp xam nañ dégg ngeen lépp lu mu wax rek yàlla day jubóog moom si wax ba <laughs> bu yàggul rek dégg ngeen waxoon waaye yàlla dafa déggoog moom kon nag képp koo xamante ni bëgg nga mu wax dara fekk yaa nga fa nga nekk ci xolu wàllu yàlla ñu ngi lay invité siyaar boobu la 14 di invité Sénégalais yi di invité àdduna yëpp di invité nit ak kudul nit sax ñu ngi lay invité si bés boobu ndax yonent bi sallallahu alayhi bëggal nañ ci njëriñ képp kuy nit rawatina kuy jullit rawatina kuy taalibe Seydi Ahmed Tidiane rawatina kuy taalibe Baye na ñëpp dajee ci Sénégal gi xool ko mu nampal ñu comme ni bonaat di nampale doomam te yàgg na ko wax kon ñu ngi leen di jox rendez-vous boobu asalaamaaleykum wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم الفاتح لما أغلق وقائد القر المعجلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وبعد ixwatul iman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may mbaax gii nga xam ne fekkeexaat nañ ko ñu ngi koy sant di yaakaar ndollam te am na ndollan ñu ngi ñaan yal nañ fekkeexaat ndax ndollan gii ñu am ren ji yal nañ fekkeexaat bu déwén di ndokkeel mboolem ñi nga xam ne ñi ay jullit lañ waaye ci nuyoo boobu ñu ngi ciy nuyu ñi nga xam ne ñi ñooy suñuy kilifa di si jiital alxalifa Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani Ibrahim ci ndigalam mi nga xam ne moom la rakkam bi nga xam ne gi moo ko fi toogal di xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim muy baaba xam ne ndigal googu mu ngi bàyyee woon ci rakkam muy maanaam magam muy Amadou keroog ba nga xamee ne gi magam nelaw na ne jox naa ñëpp ndigal mboolem taalibe yi nekk dakaar ku bëggati ñëw Kaolack yemal ci baaba ndax moo fa toogal xalifa ñu ngi leen di nuyu di ñaan borom bi tabaaraka wa mboolem jullit ñi nga xam ne ñu nekk ci àddina bi yépp nuyoo boobu yal na leen jot liñ jublu ci nuyoo bi mooy ñu ngi oote oote boo xam ne gi yàllaa ko woote ñu ngi oote oote boo xam ne gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko oote oote yàlla gi mooy lan mooy jaami yàlla yi nañuy daje ndax ñu mën a jëriñante daje bi nag li ko sabab mooy ñëw ziyaare si ñun ay taalibe tiijaan dafa bokk ci li nga xam ne lii mooy suñu ponk tariqa mooy di ziyaare ji ziyaare ko nag ñëpp wax nañ ko mooy ziyaara baay ziyaara baay mi nga xam ne moo waxoon ne moo waxoon ci xaqam ne rabbal amini aati bil amin kullal matalibi aha kañ looloo am moom mbooleem ku ko ziyaar rek da nga jëriñu euh, wax nañ ne ku bañ ñàkk ziyaare ko waaye ku bañ réer ziyaare ko waaye ku bañ maanaa yàlla sax ziyaare ko ndax nga bëgg yàlla baaba ku jàkkaarloo ko moom rek bëgg yàlla ndax moom jëmm la boo xam ne gii dafa jeex takk ci yàlla kon nag ñoo ngi ciy woo addina bi ñoo ngi ciy woo jullit ñëpp waaye rawatina ñi nga xam ne ñii ñooy taalibey baay yi ñoo ngi ciy wax ne baaba na mboolem koo xam ne kii jullit wëllare la waaye nag xeyal na mboolem koo xam ne taalibe bàyyi maanaam xëy goo xam ne gii kenn réeree hut ko ci liggéeyal la loo xam ne lii yow xam nga ne la nga am gannaaw yàlla yàlla nga ko jaarale ci baaba loolu nag kon pour ñu delloo njukkal ñun ñëpp rawatina ñun taalibe bàyyi nañ ñëw oysi ko te oysi ko mooy jëriñu jëriñ googu nag suñ ko ootee mooy que ne ñëpp nañ def sam an wa taa yal na yàlla may ñu fekkee ko ci tal bés bi mooy fukki fan ak ñeneent comme ni ko ñëpp waxee nañ ñëw oysi yal na yàlla def ci ñun dëgg ak topp ñu ngi gërëm ñu ngi sant yàlla tey ñaanal suñ xalifa Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane ak moom mii nga xam moom la ñuy yal na fi yàgg ñun tamit ñu ñëw di koy ziar di ko fii fekk yàlla mën na loolu yal na ko yàlla def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilahi la si jaala mutabaata awliyaa'i falaahan wa salaahan wa mahabatan wa tahsiman wa imtisaalu awamiri rabban wa najaan wa salaatu wa salaam ala abdalil mursali sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di ñëwaat beneen yoon ci siyaara nga xam ne ñu ngi koy defal Mahamadul Amin baaba mi nga xam ne mooy représentant xalifa bi fii ci Dakar nga xam ne damay wax ne bi mu duggee dakaar ba léegi jig na waa Dakar ndax kenn ku nekk gis na ni tariixa bi di yokkoo fi ak ni dina ji yokkoo fii ak ni fayda bi di yokkoo fii suñ ko nuyu ñi ngi nuyu xalifa bi di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam te yàggal ko ci suñ kanam waaye ñu ngi nuyu it imaamul akbar imam Cheikh Tidiane Ali Cissé moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi te guddal fanam gannaaw loolu bokki taalib yi ñu ngi leen di woo ci bis bi nga xam ne bis gën koo rëy ndax bis bi ren dañuy wax ne mu ngi tolloog fukki fan ak ñeent fukki fan ak ñeent mooy wahaabu wahaabu nag yaakaar naa ne kuy xut dara bëgg nga ku la jox te képp koo xam ne yàlla dimbale na la ba defal la tawfiq nga mën a ñëw fii ci terrain gaal gi jàkkaarloo Mouhamadul Amin Sadio dana fayu li tax loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala suhada walakinnahum yaxbitu anbiya wa suhada li makkanatihim lillahi azza wa jalla li shiddatil qurbi fa sa'ala saa'ilun ya rasulullah man hum mun hum qawmun satta yajtami'una li zikrillah wa yatahababuna wa yatasaawaruna wa yatabaasaluna fillah mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ne am na si ñoo xam ne maanaam ñu ay yonent te bokk bokkuñoon ci ñi sayit te bu ëllëgee yonent yi danañ leen ñee ñi sayitoon danañ leen ñee ñu ne ko yaa Rasulullah ñoo ñan la muy ay nit la yoo xam ne ñi dañu ay nit la yu fasantikoo yoo xam ne dañuy dajee ngir bëggante di dajee ngir tudd yàlla dajee ngir siyaarante ngir dem yàlla ji bu ëllëgee ñooñu yonent yi danañ leen ñee ñi sayitoon danañ leen ñee képp koo xam ne nag bëgg nga sa aajo faju na nga lu nga ñëw bëgg nga sa jàngoro faju it bëgg na nga lu nga ñëw ndax lan siyaaratul arbaabi tuqaa murhamoon yëpp rii wa misfa wa miftaa abwaabul hidaayati wal xayri bu ci eh, siyaarawul yàlla maanaam booy ñëw jàngoro bu mu fekk ci yow rek boo ñëwee siyaara ko jàmm mooy pomaat bi nga xam ne moo ko rii boo dal di wér kon ñu ngi woo ñëpp wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu al xalifa cheikh ahmed tidiane ibrahima Niass di nuyu al imaamul akbar cheikh tidiane Alioune Cissé di teeg suñu sëriñ mouhamadul amin ibrahima Niass ñu waral bés bi di yëgal taalibe yépp ñu ngi fas yéene ziyaara suñu sëriñ ziar boobu nag ñu ngi ko jàpp le 14 juillet incha allah ci terrain gaal bu yëgal mbokku taalibe yeeg mbokku jullit yëpp ni leen bésu jaayante teeru na kon nag góor góorlu di soñaat jigéen ñi surtout ci jaayante ñu fuglu bés bi nga xam ne suñu kanam def ci yitte bu kawe macha allah. ndax bés boobu rek lañu am jaayante ak suñu sëriñ kon nag yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm bu ñu jaayante ko ci jàmm ak salaam jaayante bu taxaw bu am sol kon euh, ñu ngi ñaan tamit taalibe yi ci ñëpp def yitte góor góorgóorlu ci bu baax di soññaat jigéen ñi tamit ci dal ak tey ak col ko gu yiw ñu fas ko yéene indi ci bërëb ba ndax ñu nit ñu mun a tëbb tëbb yu kawe kon loolu la ñuy ñaan di soññaat taalibe yëpp rek fépp fu ñu mën a ne bës bi lañu mën a am pour delluwaat fuglu bés bi bu kawe ndax ñu mën a tëbu tëbu bu kawe it kon nañ ko def suñu bés yitteel ko macha allah ba ñu am ci lu ñu bëgg gisoon nañu la ñu baaba digoon ca tey ba macha allah kon lu mel noonu la ñuy xaar yal nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam di sant di gërëm wax ci kanamu kilifa jafe na waaye ñu ngi jégalu beneen yoon ci kàddu yi ñuy yëkkati ci kanamu kilifa yi teew asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, ci ndigali Mawlana Cheikh Lislam Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Cheikh Ibrahim Niass al Khalifa ci ndigali Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi ibnu Cheikh Ibrahim ci ndigalu Imaamul ci ziyaare nga xam ne. ziare suñ sëriñ nag mu nekk Mawlana Cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ne moom moo représenté xalifa bi fii ci Dakar ziare bi nag kañ la mu ngi nekk dimanche la 14 incha allahu juin fii ci terrain gaal 14 juillet fii ci terrain gaal gi incha allahu comme niñ ko baaxoo di def ziare nag bàyyi wax nañu lan mooy njëriñu ziare ziare moom mooy ziyaada te ñun ñëpp bëgg nañ dollal te ko boo bëggee dollal da ngay dem ci ko am dollal mu jox la ko kon ñu ngi oo mbooleem jullit ñi ñëw teew ci bés boo xam ne bésu cheikh ma bésu cheikh Mouhamadul Amin bésu jullit yëpp la te kenn ku nekk ci ñun rek fekk la nag ba fi nga dëkk fekk la na ci sa jataay kon dëgg-dëgg bu buñ ko sosalee bés moom sosul bés bi ñun ñoo ko sosal kon buñ ko sosalee kenn warta am ngant ndax amoon na ngant te ku ci nekk ci ñun rek ñëwal na la ñu ngi ci oo ñëpp góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi rawatina ndaw ñi ndax ndaw ñi dafa nekk nit ñoo xam ne baaba daf leen a jël dugal seen xol yi bëgg yàlla dugal seen xol yi jub dugal seen xol yi jullite kàddu yu ci des yëpp nag ci bés ba incha allahu dañ ko mot ñu ngi oo ñëpp incha allahu dimanche la 14 juillet fii ci terrain gaal gi wasalaamaaleykum